waaw waaw. xam nga rek làmb moom. ma ne ci toog ku ko xam koo xam nga bàyyi ko fa. waaw. loolu mooy dëgg. te dend ak président des amateurs dend ak Kandji production dend ak sa ay doom mu leer ne soo seetaan ak ñoom làmb xam-xam rek xam nga lamb ji léegi dafa bëri ay buru bara. waaw du mu jeex. waaw balaay. buru yu dul jeex ñoo am ci lamb ji. buru bara moo ko xam ne intérêt la fi indi. intérêt sa baax waaye di wax dëgg te doo ci fo dëgg la yàlla bëgg di seet li nga xam mooy intérêt làmb nga di ko wax merci beaucoup maanaam di def li nga xam ne moo arrangé làmb ànd ak mbër bu ànd ak CNG ànd ak manager loolu mooy intérêt làmb allah mu nekk ay kàddu yu am solo Bamba Thiam waaye père seet seetlu que léegi bëri na ay chroniqueur ci làmb dañ lay déglu ba pare soo koy ndax ndaxte observation sans déclencher ku ko dégg xam ni yëfu père la waaw observation sans déclencher mooy bu arbitre soufflé uh-huh. kenn ku yële di nga observé sa morom mais kenn du déclencher uh-huh. ndax bala ngaa déclencher doo tëb rek di déclencher ci erreur uh-huh. waaw parce que nag ki ngay bëre nit la mu ànd ay nit nga ànd ak ay nit mu ay nit mu jóge ci kër nga jóge ci kër. ñu xelal ko xelal la. kon booy départ da ngay xaw ci li ngay départ lan la. nga ne lamb ji amul ay jinne. amul rab amul rab amul malaaka. amul kenn ko sax laaf. lan ay nit rek yu bëri. ay nit jaay fi ne. te ni day arbitré. moo fi am de. kon dimanche observation sans déclencher mën nañu ko xaar. Balla Gaye ak Tapha Tine. la kumpa. kumpa bu rëy la. Ah. ku la wax nii la nii Tapha Gaye di bëree. Ah. wala nii la Balla Gaye di bëree. ku la ko wax dafa ñeme yàlla. Tapha Tine defoon lenn lu ko si mbër xam ne ni bërëkat la diggam ak Boy Niang mu def observation sans déclencher tàllal loxo bi jàkkaarloog Boy Niang est-ce que loolu dina ko arrangé diggam ak Balla bi pa ma la wax dama ne ku la wax nii la ñuy bu dimanche daa ñu ma yàlla la ñu bëriwul duñ ko bëriwaat leneen la ñuy bëri tey. kan la bëri bi arrangé bëri bi ndoxtu bëri bi kan la arrangé. ndoxtu bëri day buñ ci àggee ñëpp dañ ko jiñ ñun Balla Gaye lañ ko jiñ. waaw bu dee doole la rek effort effort na ak doole. puissance waaw ak xeex. ñëpp tabaati lañ ko jiñ. Uh-huh. mën naa yooyu yëpp mën naa loomaate. Uh-huh. mën naa loomaate. parce que barki démb tabaati eh, eh, la teg eh, kii Gris Bordeaux. ñëpp dañu woon Ama Baldé xeex bi arrangé wu ko. arrangé wu lambeer. waaw lii mën na lambeer. mën na la. ban lamb ban lamb. ah. kenn mënu jëpp doon sa borom. ku la ko nax. mais am na ñu jëm doole ji man la ndax man Balla Gaye gis naa ko di à zéro waaw. saa si Tapha Tine da ngaa bëgg saa si mbër peer. gis naa ne ñoom gis naa leen ñoom ñaar ñëpp am doole mais ñoo tolloo jëmm. Ah? waaw. te damaa gis Balla Gaye bu ma xaw a gëj a gis si si yaram bi ma gis li ka dagg ci épaule bi jëm ci suuf ma gis yaram bi mel lu ñande foofu. non entraîné na Balla Gaye boo ko xoolee nga xam ne indi lu bari entraîné de. Ah? andi doole. andi na doole boo gisee mu ñëw rek kenn gisu ko. waaw moo lay wan yëf yi loolu. Ah. na doole loolu ci taarix mbër lan la saa wone mbër ñëw rek lëlu. loolu moo dëgg. loolu mooy dëgg mbër da nga war a nëbbu surtout combat boo xam ne une semaine ci des. da war a nëbbu. mais loolu la war a def. Ah. loolu la war a def ah, mbër mbër du wax. mbër du bëri wax. wax. daa ragal ba la. waaw mu am lu mu nëbb te feeñ. ba bés ba loolu la. ne ba être ba faar kon. waaw. daan la ñëwee. ñëpp. Tapha dafa am ndam ci ñoom Balla Gaye daan ko loolu ban ban moral la Tapha Tine nar si. lii wax ji du loolu de lii wax ji mooy Tapha lan la war a indi dimanche moom la Sénégal di xaar ndax Tapha bu daanu ju ko boobu dina yàq loo xam ne ba du ko indiwaat perte lu rëy lay perte Tapha Tine bu perte combat bi waaw yow tamit perte combat bi dana rëy trop ci moom waaw. te Balla Gaye tamit warul ñàkk combat bi. mbooloo mi amaat Balla bi amaat géejawaay ñu gis xale yi nga xam ne ñu ngi waajal Balla Gaye jege lool bëre ay am ci ndam loolu lu muy def ci mbër bu mag mi. dama ni dama ni Balla Gaye moom tamit warul ñàkk combat bi leer na non non mënu ko ñàkk waru ko ñaar. waaw waaw loo ci mën a xam rek bu samedi ci guddi fii boo fi ñëwee. Ah. di nga am lu leer samedi si guddi samedi si guddi avec le promoteur des grands événements ki tax nga dagg bii ñëw fii gise fermé la gise fermé la yow xam nga ne yow combat bi yow xam nga ni combat yi ci ginnaawam rek feesa na lamb ji sox war a bërëg maamalamit lamb ji yëpp Pikine la ah. maalaw séerage war a bërëg ki nga xam ne mooy naan di faal sox fu Sokh Balde war a bëre ki nga xam ne Bébé Saloum amuñu. Sokh Pikine. maanaam Seras Pikine. waaw. Sokh Balde Pikine. waaw. mooy ñaar Pikine. Zambala. Zambala Pikine. Eh, ak ak kan. ordinateur. ordinateur Pikine. kon boo xam ne nii boo ñaa dafa war a ñëw indi Zambala. Ama Balde war a ñëw indi Sokh ak Malaw. waaw ah, jeex na mi ngi noonu moom laa lay wax nii. <laughs> Pikine dana saf si lamb ji keroog. du de du ndaw de lamb ju gise fermé la. ah gise fermé la. gise fermé waay waay waay waay. mais père ñu ñëw nag c'est le promoteur des grands événements ki tax nga def déplacement dérangement jóge Italie ñëw fii toog xaar bis muy Baye Ndiaye. ku baax la. jatal meen la nit la naanaan la ku noppi la te waxam bëriwul. Uh-huh. te def lu bëri wax dëgg yàlla. kon Sénégalais lan lan lañ mën a xaar dimanche. ci spectacle ndaxte jege nañ la lool dañuy waxtaan ak yow ci seen i bis. bu la fekkee sa biir sa biir kër jarul nga ñëw 11h bu la fekkee sa kër jarul nga ñëw. kon ñu dem séerans ndekki nañ dem 8h. oh ab 11h loolu jarul nga ñëw 11h jarul nga ñëw. jarul ngay ñëw jarul ngay ñëw. règlement bés bi seen seen la ñuy siffler grand combat. ah moom la ñuy xaar de bu am coow ah. ah. Eh, amul dara lu ma ci yàqal dara man dama fay ñëw rek bu njëkk da nga daan ñibbi sa kër julli julli ci bis waaw. père les amateurs de parce que suñu waxtaanee ak yow te waxtaanee ak amateurs yi la diaspora ñi lay bëgg bëri lool ci diaspora bi loolu wax ñooñu mënoo leen dam te yéen a xamul ne amateurs yi nekk diaspora ñoo gën a xobee ñu ne fii ah? te ñoom dama si jaaxal dañuy teel a jënd seen code pay-per-view toog di xaar. toog ay fataaya. di nga waxtaanee. saafu yàpp. saafu yàpp. gars yi toog ràcc. Ah. ñu teg côté affaire bi di xaw di ko seetaan. kan ñi ñëw ngay invité ku ne muy ñëw sa kër. Ah, ah. looloo fa am. ndeysaan. looloo fa am de ñooñu ñoo gën a xamee ñu ne fii la am de. waaw. kon nag. xanaa xam ne léegi tubaab yi. tubaab yi nekk Italie ñooñu gën a xamee ci lamb yi. te te naa ñoom ñëpp yaa leen tax virus li am fi amul fii. mais est xaar nga jëlal làmb Dakaaru yóbbu ko Italie ndaxte tey jii nii loolu mel na ni bokk na si projet père. mais loolu dafa daan am. waaw léegi ba amatul mais loolu dafa daan am. Père Mansour Diop jëlee ay mbër Sénégal yóbbu leen fële ku si mel ni ay doomam les grands champions de Pikine rawatina ñeneen yóbbu leen pour ñu wane culture Sénégal. ah yàlla loolu dafa daan am nag loolu am de. tuuti ci été bi. ay làmb yu neex yu rëy. mais loolu mën xaar mu boole ko si projet yi. Ah, am ay partenaires. bëgg naa ko si ànd ak gars yi ñoom kañu production gars yi bëgg naa ko. waaw waaw bëgg naa ko. bëgg naa ko de. maa ngi koy jéemal mais bëgg naa ko daal. dëkk ya ca Italie ñi ñi ñi lay bëgg lool ba bëri na waa Bergamo de waa Bergamo nag bëgg nañ la lool. yoo du Bergamo rek Italie gépp Italie gépp ba France France. Paris du taal ba pare. loolu at mi di la. ba ba dafa di jël poisson bi. nga ne ko dama lay wax. ah def ci ndànk. sa digganteeg Tapha may yoole quoi. waaw. dama koy defal nag ci poisson bi. waaw nga ne ko poisson ci naan lu bëri. tuuti rek.